jërë ngeen jëf mbokk internet yi dal leen nag jàmm mel na nag campagne électorale yi das na koy tëj dem rek si guddi bi minuit jotee nekk si dem nag ñu nemmeeku nag parti yi bëri bëri ñu daal di def seen collecteur de campagne nemmeeku nag ñu si bëri daal nañ dajal rassemblement mbooloo mu bëri bëri ñu si mel ne ñooñu di waa Pastef ak ki nga xamante ne si tamit moo di Amadou Ba ñoom ñaar ñooñee ak Bassa waa Pire ñoom it ñu nemmeeku na rek gox yu bëri daal nañ fay dajale mbooloo mu takku mu bëri bare ah, bari fas na rek ñaax rek li nga xamante ne seen moo di seen i milita ak seen i sympathisant ñu fas leen a wotel si élection ñu dëgmal 2024 nag si démb daal moom collecteur campagne bi mbooloo sénégalais yi peuple bi ñu bëree bëri génn nañ dem rek ci kenn ku ne ka xam ne moom nga am yaakaar na rek bu faloo mooy sa njariñ nga naat fay dem ah, taxawu ko démb nag nemmeeku nañ côté yi bëree bëri mbooloo mu takko takko mu bëree bëri ah, sa ñooñu sa waa Pastef Amadou Ba ba sa waa Pire ak ñeneen ak ñeneen ñu xamante seen ay candidature dan nana nar a sàmm dajale mbooloo mu takkoo berikan mu bëree bëri kon nag mën nañ na mbir ma daati nay jeex nag si tey ji si samedi gi dañuy daati noppalu bu nu noppalu xëy dimanche dem si mbañ gàcce yi daati rek rek dara xam ana kan nga si di réewum Sénégal jamono joojee yow nag bu fekkente ne jàpp nga na sab candidat mooy bi gën def ko si